ñu ngi leen di gërëm di leen sant bu baax yéen ñi safoo di ñu seetaan si saa su ne ci seen chaîne leader leeral point net la télé des exclusivités alors ñu ñëw fii nga xamante moom mooy la pointe des Almadies ñëw nag pour xamal leen wala bokk woon leen benn incident bi nga xamante ni am na fii fii nga xamante ni moom mooy euh, pointe des Almadies comme vous le voyez derrière moi c' est un accident accident boo xamante ni am na euh, fii euh, ca suba si accident bi nag yàlla dafa dogal ni que ñeenti ñeenti nit ñoo ñoo nekkoon ci biir oto bi xamante ni moom moo doon dawal ñoo ñett yi nag ah, jëlee nañ ci ay gaañu gaañu. derrière moi vous voyez benn oto boo xamante ni daanaka dafa mbëkk fii daal di ah, am ah, benn choc benn accident bu mu bu mu bu mu créé fii yàq fii ay bagages yu bëree bëri bëri bëri ñu ngi ci parce que zone la boo xamante ni ñu bëri fii la ñuy laale seen seen i table ci ginnaw noonu gis ngeen foofu dafa ay barak yi fa nekk ñooñu nag dafa am ay jigéen yu fay jaay alors on va essayer de vous montrer quand même ci incident bi nga xamante moom la am fan tàmbali ak fan la oto bi mujjee am euh, li nga xamante ne mooy stoppé maanaam fu mu mujjee ak euh, ci li nga xamante ne mooy choc bi alors euh, fii la tàmbale comme vous le voyez ici table bi daanaka oto bi dafa mbëkk pied bi ni nga xamante ni moom moo fi nekk daal di mbëkk piye bi gannaaw bi mu mbëkkee pied bi alors gannaaw bi mu mbëkkee pied bi lee dafa daal di avancé yéen a ngi gis noonu à une distance boo xamante ni daanaka ñu bëri daf lañ yéem oto bi nu mu def ba mën a atterrir fii nga xamante ni foofu la euh, taxaw fii ah donc vous aussi de l'autre côté dafa am benn euh, benn euh, femme bu fi jaay mu doon place boo xamante ni dafiy jaay ay jën donc gis ngeen yéen a ngi gis noonu vous voyez frigo bi ay jën ah, daanaka ñoo fa nekk oto bi nag moom moo daal di def choc bi on va essayer de voir donc ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekkoon ci biir auto bi l'état actuel euh, de la de la voiture gis ngeen ah fii nga xamante ni foofu la oto bi mujjee ak euh, état actuel bi nga xamante ni moom la moom la nekkee alors c'est important euh, ñu ñu won leen ko et aussi euh, vous faire la description un tout petit peu euh, de la scène alors on va essayer de voir avec un témoin des mu daal dañu ko mu daal dañu ko expliquer. dama xëy ay 7 heures du di tut may new di liggéey di jën uti ndox pour def café fi may ute ndox di ñëw de de laa dégg frein bi piip ma gës taxaw si gi xool oto bi muy daw si à presque cent soixante kilomètres à l'heure si benn distance boo xam ne motul même pas cent mètres subitement dama paralysé parce que maa ngi woon ax biteel ndox si lii bi maa ngi woon ax si woon ndox ma paralysé xamatuma li may def dama deew taxaw ma oto bi mu ñëwee devant moi si lañ def benn xam nga benn coup de volant moo xam ne dafa nara def tonneau mu bàyyiwaat volant bi mu ñëw dal si affaire bi nii si la ñëw ji ramasser bagage yi yëpp dal fii nii nii justement après man pour man ça le gars il était subitement mort parce que après dama gis directement tànk yi langa lépp langa après suma ko benn copain aussi mu fi woon ma daw yuuxu fekk moom it heureusement gis na affaire bi mu daw noonu la demee ñun aussi te c'est pas la première fois aussi parce que tous les xam nga disons ñi ñuy wa doomu doomu fi sa papa yi souvent noonu la ñuy def fii nii dañuy ñëw fii di yor seen i oto di daw n'importe comment di déraper n'importe comment moto yi aussi noonu lañuy def dañuy ñëw fii te fii place boo xam ne la ñëpp dañ fiy ñëw di feexlu di liggéey di lekk si ay jën c'est dommage pour nu parce que ñun yuuxu nañ fu nekk pour ñu defal ñu ay doo daan aussi mënuñ ko am quoi mais c' est trop dangereux malheureusement nag fii accident yi fii am yëpp peut être mosu fee fekk nit mais c' est des accidents trop dangereux parce que rond point bi dafa ndaw te gars yi bu ñuy ñëw fii di daw si di fo dañuy naan dañuy dem point des Almadies te Pointe des Almadies pour pour fo quoi. pour nit ñi ñëw relaxé la lekk si jën xam nga nekk jël brise de mer mais gars ñi dañ fiy ñëw di def n'importe comment. su may morom quatre morom la xam naa dañ joge boîte aussi matinal bi nekk si oto yi di fo man dama gëstu rek gis oto bi di ñëw. bu teg ak fii def naa mën a dégg kii oto bi directement si man la jublu man moom après mënumaa daw dama paralysé dama taxaw xool oto bi di ko xool muy daw di daw ba ñëw si man bëgg a def tono xam nga benn na de volant fii la dal et puis dafa naaw jël bagage yi yëpp yaaxal maire yi yaaxal ñu ñun ñëpp ah tu vois. ay sénégalais lañ. non c'est pas de sénégalais je d'après ni ma déggee ay congolais lañ. waaw. Hmm. Ah, jëlee nañ ci ay gaañu gaañu. waaw gaañu na gaañu nañ am na sax man quelques video yi ma si am. mais ñu bëri parfaitement dañ yàq ñàkk seen i bëñ ñii seen bëñ yi dañ dugg kenn rek moo si nekkoon quand même deful dara jotu ko peut-être peut-être aussi choc bi ni mu ñëwee dafa tàng mais xam naa ne dina am lu ko métti parce que moom dafa yoroon centre de sécurité quoi. tey jaayuñu gis nga suñu bagage yëpp mu ngi nii frigo jën fourne yi seize yi paan dara ñun génnew ñu benn bagage suñu bagage yëpp ngi nii ardoise yi yëpp yàqal nañu. noonu la ñuy nekkee chaque jour chaque jour. ñun dañuy wax ba bëgg a dee bu ñu amee ku ñu si dimbali tali bii utal ñu fi ay dóor daan ndax xale yi dañuy dawal koo wax mu ne ku dee sa yaay juraat waaye ñun dañuy liggéey loolu andiw ñu fi daan doole rek moo ñu fi indi dañuy liggéey bu ñu paree dem tëddi ñu dimbali rek te yàlla tax ay doo daan mbaa ñu xool nu ñuy dawalee fii bëgg na ñëpp ñëw Almadi waaye timit à sécurité ni ñuy dawalee oto yi baaxul xoolal lii xam nga lii baaxul. man heure bi huit heures man ay sept heures dama daan fekk fi xam nga yàlla rek moom ma dimbali ba tey lii fekkuma fi ndax fii laay toog di raxas ay jën di ko dugal si frigo bi. bëgg nañ tamit ku ñu ci dimbali xale yi di ni ñuy dawalee fii dafa am doole dañuy daw bu baax chaque jour accident am fii même chose dañuy daw bu baax dal après du mujje fen ah. ah du mujje fen am na benn grand buy toog fii oto mbëkk na ko fii max moom ma toogoon fii. oto bi dal fii mu daw daanu fële carte d'identité ma ngi hôpital ba léegi jëluñu en charge fajuñu ko ay mbokkam ñoo koy faj ba léegi kooku wérul normal parce que soog bee ko jàpp dañ ne fi sa papa boo demee fii pare nañ si boo xisee ba génn fii ñoom ñu taal seen oto dem pare nañ si li fi am yëpp noonu la mujje li fi am yëpp noonu lay mujje du mujje fen te ñun tim liggéey li moo ñu fi indi ku yaaxal nit mbaa nga gaañ ki faji ko bu la neexee nga dawal timit dañu dimbali rek kii kii def accident bi amul permi amul amul permi biñ ko laajee yorul permis loolu doy waar ay xale yu ndaw yorul permis de. mais tey jii nii exemple lii nii nii tey jii bu leen fi fekkoon kenn ñaanu ko yàlla beneen affaire nga gis lu gën ñaaw comprendre moto yi des fois. dañuy utal du daan fii yenn moto yi yenn booy yi nga xam ne daal tey benn essence tey ñoom dañuy dawal te duñ am moyen duñ am xel duñ xalaat ñu utal leen duudaan boo xam bu ñu ñëwee danañ mën a xam nga wàññi seen teggi seen tànk buñ teggee seen tànk après ñoom dinañ xam fii gars yi lan la ñuy daj fii parce que tellement sànq rek moo si mujj léegi nii bu affaire bi amee pare sànq convoi moto ñoo fi dugg mais fii dafa xat te bërëb bi dafa xat parce que bu ñu defoon ndànk naa ñu ñëpp mën nañ si xaj mais dama nga gis benn boobu waxee da ngay wax ne ko gaan dafa ndànk sax muy la maa def foog saaga la saaga la la lay def après yow lan ngay mujj obligé bàyyi mu sedd parce que yow da ngay da ngay daan si doole xeex taxuloo jóg jàppante taxuloo jóg da nga gis yenn boo yoo xam ne dañuy tàkk comme tàkk bi mooy lan dañuy dañuy dañuy màndi waaw si dañ ko wax quoi ah waaw bien sûr dañuy dañuy màndi yenn boo yoo xam dañuy màndi parce que tamit màndi boo ko defee tàggoog sa sago ah doo mën a contrôler sa bopp quoi te oto dafa saytaane parce que lii nii am ni tey nii nii kii bu doon mandiwutoon peut-être moom dana mën a contrôler boppam te volant bi ba nga xam ne tey jii lii demee nii donte bu soog amee ndogal kenn wëradu ko yàlla mu ne ku nekk booy génn sa kër bu waxoo ne damay damay dem def accident mais tey nañu wàññi yenn affaire yi pression yi pression yi grand dafa bëri gars yi dañuy pressionné du ñëpp nag quoi mais ñenn ñi ñi nga xam ne tey jii buñ pressionné dañ toog seen kër ba pression bi wàcc ñu doog a génn man loolu loolu daal bëggoon naa ku ñu si jàppale soit nag ñu def ko gars yi def fii ay duudaan loolu moom jot na quoi wax dëgg yàlla parce que gars yi dañuy taxale ñun ñëpp ñu si bëri ñun ñi man ñoo dëkkuma fii mais dama fi ñëw di daan sama dool yi taxale va mais tamit des fois nga gis loo xee da lay métti te booy koo si wax dalay lay saaga affaire bi am nii nii nii nii yàlla tere tey bu fi fekkoon tey jii nii yenn maire yi toog nii day gën a garaaw waaw sànq rek moo si mujj léegi nii si dimanche bi routière convoi wu moto ñoo fi dugg te routière xam nañ lu nekk si routière ay ñaata ñaata ñaata ñaata kii la routière ay su ma juumul su ma ay 600 500 la wala mu ëpp ko waaw muy daw loolu noonu lu kawee loolu di daw lool noonu xam nga tey jii nii amul des fois da laal doo doo doo doo daj frein te mënoo contrôler su at nag fekkee nag su fekkee da nga boole ay pression yu bëri sa bopp doo mën a contrôler te booy dañuy pressionné rek. correctionnel mooy. mais parce que dañuy dañuy jël yoo xam ne yow doo comprendre. ñenn booy yu bëri dañuy nu ñu koy booy waxee ay fisa papa lañ ñenn booy yi nag yenn booy yi mooy ñooy yenn booy yi nga xam ne dañuy taxale benn wecce dem luye si benn affaire ñëw di di la wan ne la man lii maa xam te moomoo ko ñun xam nañ game bi parce que tamit bu dul dara ñun yàgg nañ si temps bi daal yàgg nañ xam nañ li gars yi game yëpp mais yenn booy yi nga xam ne nag ñoom ah xam nañ mbir mi ñooñu ñooñu ñooñu ñu ngi koy def si nice diplomatique ñoom ñu ñu ngi koy gérer mais yeneen booy ñoom lu leen neex la ñuy def. borom oto yi ni ñuy dawee fii baaxul vitesse la ñuy dawee fii ñun dañuy mujjee léegi bu ñu seen oto di daw daw bu metti sax dañuy jox parce que ñun óolootuñu place bi parce que oto bi ñëw rek day mel ni suñu lay jëm si ñun daal bu leen ñu mënee dimbali dimbali ñu bu ñu mënee dimbali dimbali ñu parce que oto yi li ñuy def fii metti na daal parce que lii tey bu fekkoon dimanche si ngoon la ñiy jënd bagage yëpp fii la ñuy taxaw kon maa la day taari kenn du fi des mais yàlla ka defal bu muy 8 heures suba. booba kenn xëy seegul mais yàqal nañu yàq ma métti daal yàqal nañu yàq ma métti heureusement nag sant naa yàlla bi ñu ma fekkul mais chaque jour fi laay toog di jaay métti na daal métti na ñeenti yoon a ngi nag benn bi kereb bi la dugg benn bi bitigu naar bee la dugg benn bi borom place bee la fekk bi mooy ñeenteel bokkulax accident yi ma fi jëkkoon dal man metti na daal oto yi daal nit ñi def fi daal metti na daal te ñun fii place bu la boo xam ne ñëpp dañ fiy ñëw ndax lii tey ku ma fi fekkoon mara day taari bu doon une heure fekke ñëw ñëpp oto bi daal ñëpp lay rey bu boobaa waaye sant yàlla rek sant yàlla ñoom nañ ñu dimbali daal lii am fi daal ku ñu si mën a jàppale dimbali ñu si nga dimbali ñu si sëñ bi te yàlla tax metti na daal sonn nañ nañ ñu dimbali nañ ñu dimbali mën a dimbali daal nañ ñu ko dimbali waaw nguur gi tamit yaakaar naa dégg ngeen message yi alors nu ñuy jéem a fexe ba jàppale leen ci li nga xamante ne moom mooy accident yi fii faral di am dégg ngeen li nga xamante ne moom la wax dafay faral di am ay accident mais du mujjee fenn ñoom ñii tamit dañuy daan seen doole mais ñi nga xamante ni ñoom ñoo fii faral di fréquenter rawatina euh, des jeunes yi nga xamante ni ñoom la ñuy wooyee des fils à Euh, bokk na ci ñi nga xamante ni nañ leen di joxoñ baaram tuuma ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk ci Pointe des Almadies di daan seen doole alors dañ leen di blâmer à chaque fois euh, ci accident yi fi am te du mujjee fenn te la plupart d'entre eux duñu yor papier yi di dawal